برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينان ورحمة الله وبركاته oh, شيخ ماكي شيخ السوبرافي مدام uh, sang yu tedd yi nekk ci ron mbaar mi yëpp sang yu góor yeeg sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi waaye itam maa ngi leen di indil nuyoo xalifa Cheikh Matiyan bi nga xam ne man maa toog fii tey ñu dama koy utu ndax xaw ma xaw ma umatul we looy utee yaram yëpp waaye daal gannaaw durus jotaayu jotaayu jàng rek la ak jotaayu fàttaliku ak jotaayu xam suñu bopp kon lu nekk rek mën nañ ko nangoo dañoo ñëw ñun ñëpp pour jàng dañoo ñëw yëpp ñun ñëpp pour dooleeku dañoo ñëw ñun ñëpp pour ci kanam yàlla ñaan yàlla yàlla yàlla senegal Sénégal yàlla yàlla yëkkati senegal yàlla yàlla jox Sénégal barke yàlla yàlla ubbi xel sénégalais bam xam ne moom du ku du ku yembar nit ku mat la nit ku kawe la ci taarixam bañ toogat bañ toog fii ndax su fekkee Cheikh Matiyaan mu ngi fàttaliku ne nañ fàttali nit ñi ay magam yu jigéen du pour tagg ay magam yu jigéen parce que ñoom taggu nañ ba pare taggu nañ ba pare waaye nag nit dafa war a am mémoire nit dafa war a am référence parce que boo amul référence amoo mémoire doo mën a tabax am nga mémoire am nga référence bu ko jar nga mën topp sa référence boobu xam fi mu dugg xam lu mu def ñi raw ci àddina bi yépp topp seen référence yi rek ci a rawee ci àddina parce que boo demee ci Europe France nangam mag nangam boo demee seen nit ñu mag ñi rek la ñuy nettali seen nit ñu mag ñi dañuy nettali seen nit ñu mag ñi dañ gis ne ñooy royuwaay seen nit ñu mag ñi dañ gis ne ñoo mën a jiite nit ñi teg leen ci yoon bu nga xam ne ñoom fi ñu bëgg a àgg nit ñi dañ fa àgg ñun tamit boo ñëwee fii tey Cheikh Matiane mu ngi jàngal ne nit ñu mag ñooñu ñun am nañ leen waxuma la am nañ leen ci ay góor mais am nañ leen ci ay jigéen ndax liñ dégg fii ñu nettali ci jigéen ñi ñu nettali ci Babacar ci éloquence bi mu waxee ci soxna yi soxna yu kawe yi nga xam ne kenn ku ci nekk luñ lem melalee rek doon nga ko suñ la melalee ne yaay nga yaay nga suñ la melalee ne jàngalekat nga jàngalekat nga suñ la melalee ne euh, mag nga mag nga suñ la na ne euh, yarkat nga yarkat nga kon nag yooyu rek la nit ñi soxla am ko ci seen addina ndax ñu mën a tabax avenir bi nga xam ne bëgg nañ ko tabax pour seen nation yi nga xam ne ñu ngi màgg si donc bon bésu tey bi bés na boo xam ne bésu daje pour ñaan yàlla la d'abord daje pour ñaan yàlla ndax jaam jaamu yàlla du doyal ci ñaan yàlla jotaay bii ñu daje ñun ñëpp góor jigéen mag ndaw ak suñ kilifay diine yi ak suñ kilifay addina yi yëpp daje ci yoon benn mbaar wax yàlla rek ne ko am ci soxla yal na nga ñu dëggal suñu soxla boobu dañoo bëgg suñu réew mi dooleeku dañoo bëgg suñu réew mi am jàmm dañoo bëgg suñu réew mi am xam-xam dañoo bëgg suñu réew mi am alal loolu yëpp bëgg nañ ko mënuñ ko amoon suñu bopp waaye ñu ngi taxaw sa ron yow yàlla di dimbali ko sa mbaax ak sa kattan yàlla na nga ñu may nuñ la mën a ñaanee ba nga nangu ñu suñu ñaan ñu may nuñ la mën a ñaanee ba suñu réew mi ñu gis ko réew moo xam ne réewu addina bi la addina bi ñëw si suñu réew mi euh, ndax yàlla may na ko lu jar addina bi ñëw fi may na ko ko ndax waxoon euh, na ko ci gàmmu gi ne Sénégal góor ñi fi jaaroon fexe nañ ba def ko muy réewu pèlerinage at bi yëpp dañuy ñëw fii day ut si yàlla ak ñaan yàlla ak barkelu yàlla moo leen fi indi loolu Sénégal am na ko te ci ay góor ñu fi jaar ñoo xam ne dëgg-dëgg góor ñooñu mën na nekk référence su sénégalais su fekkee sénégalais xam na boppam bëgg na boppam ne du nit ku ndaw du nit ku tuuti mais nit ku bàyyi ko fuy yàlla di màggalee nit rek Sénégal jaar na foofa ngir nekk nit ku màgg ngir nekk peuple bu màgg ba léegi Sénégal doy du wut ñàkkut fayda te ba léegi ñu ngi xeex seen façon xeex parce que jamono bi nag moo métti métti boo xam ne booy xeex du def lu baax sax kenn du xam ne lu baax ngay def dañ lay boole ci yooyu ñuy wax rek metterewul terewul ñi ràññeeku di def lu baax ba léegi ñu ngi ràññeeku di def lu baax ñi ràññeeku woon xam lu baax ba léegi ñu ngi ràññeeku di xam lu baax ñi ràññeeku woon di dimbale lu baax ba mu jëm ci kaw léegi ñu ngi ràññeeku di dimbali baax mu jëm ci kaw bokk na ci voilà ñu ngi am jotaay suñ kilifay addina ngi nii monsieur le sous-préfet ngi nii maire baa ngi nii ñëw ànd ak ñun ci ron mbaar mi ndax ñun kenn lañ ci yéen yéen tamit kenn ngeen ci ñun kon seeni soxla mooy suñu soxla seen jubluwaay mooy suñ jubluwaay dañuy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dimbale ba seen jubluwaay boobu ñu mën cee ànd ak yéen comme niñ ci amee ngërmande yàlla yàlla na yàlla defal leen ko ñun tamit seen jubluwaay boobu yàlla nañu yàlla may xol yoo xam ne danañ ko mën a dégg mën koo comprendre mën koo jox valeur bi nga xam ne moom la doon du jubluwaayu ñëw rek nañ naxanteeg nit ñi pour jàll ah ah naxanteeg nit ñi pour jàll dafa yomb waaye mën nga naxanteeg nit ñi du jàll mais boo demee ba gisee tuñ la rek nga daanu mais boo nekkee nit ñi ci dëgg buñ la gisee sa dëgg googu moo lay taxawal yal nañu yàlla may ñu mën a taxaw ci kaw dëgg boo xam ne daf ñuy jëriñ ba fa àddina jeexee ba ba ñuy taseeg yàlla ak suñu dëgg googu nga xam ne moom rek moo mën a tabax nit koo xam ne nit ku nit ku taxaw la ñu ngi am kontaante dëgg-dëgg ci jotaay yu mel nii ndax jotaay yi dafa ëmb ñaar yëf dafa ëmb ne yéen ñi wax ne l'islam diine terroriste la wala ñu ngi nii toog mbooloom yëpp boo fi boo ko doon visité dafa fekk am ku am paaka dafa fekk am law reer dafa fekk ku amee bomb te ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm ñu ngi am jàmm bu doon réewu terroriste la kon kiij nañ bu yàgg ba tasaaro waaye réewu jàmm la réewu nit ñoo xam ne xam nañ lañ mooy jàmm ak xam nañ nañ koy wutee yàlla ñu ci yàlla gën a dimbale ñu gën ko am ndax ñu mën a tabax suñu réew tabax ba nga xam ne mooy tabaxu dëgg wax nga monsieur le nañ ñaanal autorité bi nañ ñaanal gouvernement bi nañ ñaanal président de la république loolu ci lañ nekk munuñ cee ko koo ñàkk a def parce que ñaanal sa gouvernement réew ak ñi sa gouvernement réew ñaanal sa bopp rek la ndax jàmm juñ am ñun lañ koy indil pexe muñ am itam moo xam ne daf ñuy dolli ñun lañ koy indil kon nag nit koo xam ne mu ngi taxaw di la xeexal ci àddina boo xam ne àddina bu jafee xeex la su suñ kilifay àddina bi dëgg-dëgg bu xamee seen taxawaay dañ leen a war a yërëm waaye waruñu fee nekk sax di leen xool bët yi nangam ak nangam ak nangam ndax boo xamee àddina bi ñuy jëflanteet addina bu kawe boobu ñuy jëflanteel addina xaalis addina politique addina ay moral addina ay nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp ñoom ngay jëflanteel te am nga sa bopp boo xam ne buggoo koo ñàkk ci biir loolu yaa ngi xeex pour indi waaye buggoo ñàkk sa bopp foofa dëgg-dëgg kooku ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dolli dëgëraay yàlla gën ko dolli leer yàlla gën ko dolli taxawaay dëgg-dëgg boo ko defee sa bopp nga koy defal waaye bugguñoo am di ko di ko du am fitu yi may jàkkaarloog ñeneen na yëg na yëgee ci ñun ne ñun ñooy fitam ñooy dooleem ñooy kattanam ñooy ñaana ñoo koy ñaanal yàlla ndax daf koy yëg bu ko defee dool dolli lu muy dolli Sénégal dooleeku rek la koy koy may te loolu yëpp mën nañ ko gisee ci jotaay bi xew nii tey parce que jotaay bi lu ko waral Cheikh Ahmed Tidiane gis na ne bokk na ci matal taarix bokk na ci matal kulëre bokk na ci matal ay leçon yu bees yooyu jox génération buy ñëw gañe leen bu leen fàtte seen bopp xam leen seen bopp parce que boo xamul sa bopp da ngay yomba fa kastaloo waaye boo xamee sa bopp boo fa kastaloo itam di nga jóg boo fa kastaloo itam di nga jógaat boo xamul sa bopp boo fa kastaloo jeex na oh yëpp yàqu na ah bu ko defee loolu mooy indi difficulté yi nga xam ne société yi quelquefois ñu ngi koy dund parce que da nga dem fakkatalu nga tax xamoo foo joge kon nag naa continuer rek kii naa continuer rek hmm? waaye boo xamee ne dëgg-dëgg sénégalais comme sénégalais ku yàlla teral nga ku yàlla teral nga ci ci baatin ci barke ci diini ci yëkkatiku Sénégal pays bu ndaw la mais boo demee sous région bi yëpp religieusement moo ko jiite pourtant Mauritanie ngi fii réewi arab la réewi diine la ñooñu ëpp xam-xam ci diine waaye Sénégal la yàlla may teranga boobu ci seen biir teranga boobu yàlla may leen ko buñ fàtte ne ay góor ñoo ko xeex ay góor ñoo ci def seen bakkan ay góor ñoo ci def seen doole ay góor ñoo ci def seen dog te bañ koy def defuñ ko pour xaar kenn fay leen ku dul yàlla defuñ ko pour xaar kenn dimbali leen bu dul yàlla moo tax bu leen yàlla fayee def seen réew muy réew bu pèlerinage dëgg dëgg yàlla a ne ñooñu fi nekkoon démb di xeex te yéen ñëpp xam ngeen ne Sénégal fi nekk ni réewu pèlerinage la yow su le wax nga ko léegi ci sa waxin façon yi waxin ndax xam nga Médina du pour Médina rek du pour Sénégal rek waaye pour euh, international international international yooyu yëpp dañu fi ñëw loolu mooy pèlerinage yaakaar yàlla moo leen fi kon nag réew mu am noonu ku ko am war nga bàyyi sa xel ci population boobu population boobu itam war na bàyyi xel ci boppam ne du xeex rek ak xuloo ci la ñuy àggee ci liñ bëgg jàmm ak ut ko ak ñaan yàlla ak toroxlu yàlla ak liggéey moo lay àggalil ci li nga bëgg liggéey nag boo ko xeebee doo liggéey boo xeebee jël rato di bale mbedd mi bu weer dee nga am ci dara boo ko xebee dul liggéey parce que foofu la sa kattan toll donc li ko dabee ci baarab mbedd mi ba ba ngay àggee ca pare président de la république yépp liggéey rek moo koy def liggéey rek moo koy moo koy may nit te nekk ci président ba ak nekk ci mbedd mi di bale ñoom ñëpp ay citoyen sénégalais kenn gënut kenn ñoom ñëpp ñëpp ay citoyen sénégalais lañ kenn gënut kenn ah, kon nag gannaaw noonu lañ mel bon koo xam ne bàyyi na xelam pour na sénégalais yi bàyyi seen xel ci seen bopp ne am nañ ay référence yoo xam ne ñu jar di fàttaliku da waxtu wu nekk te su fekkoon ne ay góor rek lañ bon góor yàgg nañ ko waaye nag ay jigéen lañ fi ne waxewuma leen li góor ñi def mais leen di wax li jigéen ñi def li ñu wax ci jigéen ñi yépp góor rek moo ko daan def waaye nag boo amee koo xam ne dafa xam xam yar la da xam rek te Cheikh Ibrahima ku xam la o xam la dëgg xam dëgg dëgg Cheikh Ibrahima moo ko def tax euh, firi firi bi mu firi nit ñi diine yomb firi bi firi ni ñi diine mu yomb mu ne xàmmeewuma góor ak jigéen am njëriñ laa xam am njëriñ moom laa xam donc bon jigéen ak góor amul discrimination amul lii amul lii amul lii yëpp bokk yem parce que ku am njëriñ rek bu am nga njëriñ di jigéen yow la su fekkee am na njëriñ di góor yow la waaye boo amul njëriñ di góor foo boo amee boo amul njëriñ di jigéen te moom du ñàkk njëriñ jigéen moom waxtu nekk mu ngi am njëriñ ah kon tamit ah, yal nañu yàlla may noonu bàyyi gisee yal nañu ko yàlla maye muy suñu Sénégal muy suñu Sénégal ñun ñëpp mbaax lañ bëgg jàmm lañ bëgg kawe lañ bëgg dooleeku lañ bëgg xam-xam lañ bëgg nit ñu civilisé ba mën a dem aljanna ñu ñooñu lay soxla parce que nit ku civilisé wu du dugg aljanna nit ku civilisé mooy dugg aljanna bu leen dégg civilisation nag mooy rafet ak du civilisation civilisation mooy mooy nit ku correct xam ni mu tëddee xam ni mu tëddee mu nangoo ma génnee benn alkaati ne ma ba taxaw di ko woon ne man ah, damaa alkaati la mooy sama kilifa naa ah, nangu li may sant ma def ko li may aye ma bàyyi ko waa nekk naa ni civilisé bu boobam ci boppam moo may teral waaye bu ma ko jaayee nag yeneen affaire ah mën ma takkal ay caabi yóbbu ma foo xam ne eh, maa ko def maa ko def maa fa yóbbu sama bopp mais du moom moo tax nit bu civilisé wul du dugg aljanna nit bu civilisé muy dugg aljanna parce que boo civilisé ci ngay nangul yàlla boo civilisé ci ngay nangul ne lii xew yàlla moo ko amalee noonu naa ko nangoo noonu su fekkee baax na alhamdulilah su fekkee am na luñ ci war a jubbanti bu ko jubbantee doole mais jubbantee ko xam-xam jubbantee ko yar jubbantee ko yëkkati ko ci ko waaye boo ko jéemee man dama am doole man dama am làmmeñ man damaa mën a xuloo vraiment doo sottal dara Amar Abdullah Wul Sayid daf ma nettali mais bi mu amee vingt ans dégg baay dafa doxee Mauritanie ba Kaolack ñëw seet si baay dafa dox ak tànkam ba agsi mu ne bi mu ñëwee dal di dugg ak dugg baay dugg baay dugg baay alors yooyu mu doon ut yépp sotti mu am ko mu am xam yàlla mu am bëgg yàlla mu am bëgg nit mu am bëgg yëkkati ko mu ne bi gisee loolu yépp am na am na ko mu ne lii nit ñëpp war nañ koo am parce que nit amul lu ëpp lii ci àddina bi parce que foofu la noflaay yu doomu adama nekk doomu adama noflaay bi nekkul ci climatiseur nekk bu rafet ay fauteuil ay oto kooku moo gën a sonn ci addina bi ah? ndax lu lu laal sa oto nga ah oto ah lu laal sa néeg nga tiit lu lu lu yëkkatiku nga noflaay nekkul mais mais noflaay mooy nga nekk ak mooy nga nekk ak yàlla boo nekk ak lu yow rek daf lay neex da ngay kontaan parce que xam nga ne yàlla lii boo ko tegee mu mu naqari la léegi mu ñëw neexal la moom ci boppam ñëw neexal la ah won la loo xam ne yaakaar woo ne dina ñëw bon civilisation nooy duggante ak sa bopp nooy duggante ak addina nooy duggante ak yàlla foofu la nit ki mën a tabax addina di bàyyeekoo xam nga ne Cheikh Ibrahima mi tabax jigéen ñi bu gisoon parce que waxal na ko boppam wax na ne kuntu kuntu nekkoon na za wujudin wa ilmin wa maalin wa jaahin nekkoon na nit koo xam ne loolu di nit daan ciitaroo yépp am naa ko parce que maa ngi ni nekk na nekk naa di borom xam-xam te je suis encore jeune nek na di borom daraja parce que sama baye borom daraja la nekkoon na itam amna alal waye loolu yep dafa melni safara dafa joge asaman la ko mu jeex yalla bu mu ci ah yalla bu yalla bu nekati man man Ibrahima Niass yalla bu ko nekati yalla bu ko nekati man borom xam-xam bi yalla bu ko nekati yalla bu nekati man borom alal ji yalla bu nekati man borom daraja ji ah lo beug nek nak ne nekk rek nekkal yàlla jami yàlla ah di sonn di raam comme jami yàlla yépp ah waaye nag kooku wax loolu yàlla fay na ko fay fay fay fay taxaw wax ne jaami yàlla laa bu lottut ci yàlla ah yàlla la bu lottut ci yàlla in qultu kun yakun grata suivi yàlla may ma ba nga xam ne bu ma leen am rek mu am waaye nag ak lim lim mel mel noonu terewul dama ne yàlla téyel sa yëf rek man ma nekk ak yow di sa jaam ah rek man ma nekk ak yow di sa jaam mu jeex waaye jaam boobu comme li ko le préfet waxee ak madame la maire wala le maire madame le maire euh, ak euh, ñi fi wax yépp seen wax yépp mi ngi jublu ne ñii ci école bu kawe lañ bàyyeekoo ci professeur bu am niveau professeur niveau professeur ci domaine bu nekk boo xam ne ni soxla nafa fa jàng boo ñëwee ci jàngam ngeen di dem nga xam ne yaa ngi ànd ak professeur mais boo ñëwee ci jàngam nga xam ne yi dañuy ka nangam ak nangam كافيك منافسات ها أه؟ أه أه, آه. لقيت ظبيا يتلألأ فقلت ما اسمك قال لولو فقلت ليلي فقال لا لا رجنت الناخ وحبوبا ويشفر انك ما قصدني احد ما عرف الله ko matale yépp dafa mat ci moom moo tax mu mën a tabax jigéen ñi mu tabax tabax boo xam ne yërëm na leen comme baay bu leen jur te yërëmu leen comme professeur bu bëgg ñu xam professeur bu bëgg kii xam yërmande du jaar seen diggante affaire baa ngi nii nuñ koy déggee noo koy déggee ak nu ma koy déggee voilà bu boobaa nag kenn du yërëm sama morom Moustapha maa ngi nañu ak dara boo demee noonu la nekk ak jigéenam fàttali ko na benn bés mu bind yaama benn leetar rek yaama daf ko bind ne ko man aw ma su ma néeg boo ñëwee dara nekku fi aw ma sax ay fauteuil yu ma teeroo samay ay gan buñ fi ñëwee sama lal bi dafa damm dama bëgg nga dimbale ma pour ma am lu may teeroo gan yi lettre bi ko bàyyi bi ko yaama bind dafa ëlbati ci gannaaw rek <coughs> yaa Maryamu kuni ko <coughs> ah. Ah, ah, eh, laay ji tëralate indil mooy Maryama Maryam da aj sa ci àddina da aj sa ci àddina ah ngo yamade mum hokkudu ti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in loolu la ko bindal malaki wali dunya malaki wali dunya mariam demal julli ji demal toroxlu ji yàlla demal ñaan yo, ya, yow ana yow ya ak àddina looy ya, looy defee àddina demal nga def loolu voilà bu ci ay wu jëm am yu rafet yu nekk yow ngay doomi bàyyi sa néeg amul fitéy amul lal amul dara ngay jaay sa sa sa ne yaakaar ne boo ko dawatalee sa baay dana la dimbale mu ne yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin maa laki wali dunya maa laki wali dunya maa laki wali dunya jox ko jox ko lettre bi mais boo demee ni ko monsieur le préfet waxee léegi boo Dakar buy dugg Dakar di nga gis loo xam ne kooku ñu bindoon àddina ne ko maalake wali dunia moo tabax di nga gis ne kooku amatoon ay fëtey moo tabax ay tet fii ci Sénégal ak fële ci Nigeria ak ca Ghana ak fu nekk ci àddina bi dama tukki daaw murit euh, euh, euh, Fass Maroc ñuy dugg ma wax na wu demal ci marché bi nga dem jindi nangam jindi nangam mu dal di dem tuuti dal di ñew yim doon jindi yépp mu indi ko ne jëndu mako wala ko fokk jëre moy dama fàtte seg ben way ño bokkon mak mom darul quran moma jox li yépp ñoo bokkon nek darul quran moma jox li yépp parce que ño bokkon ci dara ja kon gis nga dara ak ko préparer ak ñi ñi préparer lolu mo doon dara cheikh ibrahim kon ñu gërëm bu baax a baax taxawaayu cheikh bi du taxawaayu damay tagg sama mbokk non du taxawaayu dama am ñëweti ci samay mbokk kese kese mais dama am taxawaayu dañoo war a fàttaliku ne ñun am nañ ay référence ah, am nañ ay référence te duñ ay référence yu góor rek kese kese mais ay référence yu jigéen jigéen ñoo xam ne mat nañ lu nekk mat nañ lu nekk ci alxuraan mat nañ lu nekk ci xamxam mat nañ lu nekk ci diine mat nañ lu nekk ci tariqa tijaniya mat nañ lu nekk itam socialement boo demee boo leen boo si gisee kenn ku nekk ci ñoom vraiment da ngay bëgg a fàtte sa waa kër ndax ñoom ndax euh, euh, wala yaatu yaatu yaatu lu nekk xaj na ci sa biir ku bu ñeme xaj na ci sa parce que bu gisee na gis koo xam ne xamut lan mooy ñeme ah parce que nit war ta bay boo boo ñoo war a wax ne kii dafa ñeme da gis ñu am xam-xam da gis ñu am yar da gis ñu am tegiin da gis ñu tabe ñu tabe tabe ba nga xam ne lu nekk mën nañ koo maye des ak ñoom kenn dama fàttali ko benn bés maa ngi toog ak sëñ daam laa yarxamu suba teel noonu ma ñëw toog ci buntu kër ñu toog ci buntu kër gi di waxtaan soxna si génn ne ko damay dem marché mu génne lim am ci poosam jox ko lim am ci poosam jox ko soxna si dem sorewul dara benn waaye ñëw ci moom ne ko sëñ bi kër ga de nangam ak nangam mu ne ko eh kaay mu ñëw mu ne ko ah lu ma jox ko jox laaj soxna si ne ko ah ku ñemee loolu joxe sa dépasse ba pare te yow amoo boobu nga amoon amoo leneen lu fi des ah nga dindi ko jox ko keneen ndaw si di wax na ne ko maasoo ñu toog ma ne ko waa ah, sëñ daam lii foo ko tëral mu ma din ko xam léegi mu ne ma di nga ko xam ñu toog rek benn waay agsi naari ganaar jënd benn jox ko ne ko diwla ko mu ubbi ko muy trente mille francs voilà man jaa abil xasanati loolu dafa waa suram saali keroog dafa doublé dépense bi jox ko ma ne ko ah, am suma wàll mu ne ma bokkoo ci bokkoo ci demal nga wuti saba si bopp <laughs> demal nga wuti saba si bopp voilà loolu la parce que nit doo ko yàq doo ko doo ko doo ko mais da nga koy won ne yoon wi nii la danga koy won ne yoon wi nii la euh, kon yéen jotaay bi yëpp cheikh woowu leen pour taggal leen ay magam mais def leen a woo pour wol leen ne ay magam ay référence lañ cheikh woowuñu pour yëkkati ay magam daf leen a woo di ñu wax ne dañoo war a am mémoire surtout mémoire boo xam ne soreegut lool barki démb rek la am na sax ñoo xam ne ñi ngi fi ba tey seetal xale yu jigéen ci jamono booba jamono dans les années trente nangam ak ñoom ñëpp ñu tere alxuraan wala ñoo am 16 ans wala ñoo am sax 13 ans ñoom ñëpp ñu tere alxuraan c'est loolu loolu amuñ ci tere alxuraan mais dañ ko tere ba pare bindu ko amuñ ci tere ko bindu ko mais dañ ko dañ leen ko firil jàngal leen ba ñoom ñëpp ñu nekk ay borom xam-xam yoo xam ne euh, am na am na góor ñu bari ñuy coowee xam-xam mais kuñ taseet ci ñooñu dañuy noppi ñu tase ci ñooñu dañuy noppi mus na ci ci Makka ñu armal ba pare euh, benn jigéen benn sëriñ benn jigéen ñëw man suma dox bi dafay metti mu ko yaa ko lu tax mu man dañ maa jàngal ne ku armal ngegenaay mu ko ki la ko jàngal waxul dëgg dal ne jox ma téere nangam ak nangam waa ji di seet ko jaru sax ki ko wax dëgg eh? mu ne sëriñ diwa ma ko wax mu ne ko dama la waaye ñu ne ko ah ko mu ne ko demal jël sa gënaay nga gënaay nga nelaw ah yow seetal jigéen atte buñ ko tëralal ba pare nga ñëw dindi ko jox ma téere bi pour ma jarut téere bi ma la wax moo am seetal doole boobu seetal yëkkatiku boobu seetal xelaat boobu kan moo ko mën a def ci jigéen ci biir réew yi arab yooyu nga xam ne tegul nit ku ñëw donc man euh, cheikh cheikh xalifa woowuñu comme ni ma leen ko waxe pour tagg ay jigéenam pour yëkkati leen pour sentiment pour nangam ak nangam mais dafa ñëw pour jox ñu yeneen leçon yoo xam ne dafay wax Sénégal am nga référence waaye fexe la am mémoire ndax nga mun a fàttaliku sa référence yooyu nga xam ne fu nit mën a àgg fu nit mën a àgg ci àddina mën nga faa àgg mën nga fa ak nga ak lu nekk nga def ko ci mbaax fu nekk lu nekk nga def ko ci kawet loolu yëpp mën nga koo def ay nag dañoo nekk ci àddina boo xam ne euh, dafa ndaw te nit ñu ndaw itam bëri fi lool bëgg a ooteef boo xam ne aguñ fa mbëlelal ci bëree bëree bëree bëri ba nga xam ne ku euh, nekk rek lu la neex nga wax waaye terewul la daan baax mi ngi baax la daan kawe mi ngi kawe la daan yëkkatiku mu yëkkatiku la daan yar itam ba léegi mi ngi yar dal nañu yàlla dimbale yaral ñu suñ Sénégal gi karanga yim ko may yal na ko yëkkati yal na ko dolli am na benn président bu ma mos a di waxtaan dana ko gis président Sénégal karanga bu nekk mën na ko am parce que taranga baatinam mën na ko garantil taranga zahir Teranga baatinam la ko dalee Cheikh Omar Taal la ko dalee ci El Hadj Abdoulaye ko dalee ci Hadj Malick Sy Cheikh Bamba ñooñu ñëpp terangay baatin lañu buñ amee nag benn boo xam ne groupe bu bu bu correct lañ bu jub bu liggéeyal Sénégal ala fokk baatin boobu dana feeñ ci zahir si dañu àgg ci barke dañu àgg ci barke dañu àgg ci yëkkatiku dañu àgg ci dooleeku ñu euh, ngi yaakaar ma ne ko maa ngi yaakaar yow ak sa bi ngeen nekk groupe boobu seen loxo nar a feeñee barke Sénégal waaye nit li mu bëgg bokkut yàlla di def yàlla def na barke Sénégal ci seen ay la ko yàlla feeñal ci ayu Macky Sall ci ayu Macky Sall lañ dégg ne Sénégal am na pétrole ci ayu Macky Sall lañ dégg ne am na gaz ci ayu Macky Sall lañ euh, teret bi dama tut euh, ñu ngi ko daan bon bon NPE jeex na amatul nawet mi mu daan jafee jafeetu ko loolu yëpp barke bu yàlla nar a génn la lu ngeen gën a jubalee rek yàlla di leen gën a indil barke yoo xam ne foogu leen ko yal na yàlla may leen ngeen gën a jubal ngeen gën a am ngeen gën a am yëg ci seen population bi jege leen bu baax a baax bu ngeen leen jegee di ngeen xam seeni métit bu ngeen xamee seeni métit ala foog seen xol ak seen mën-mën dana leen may ngeen jéem a fay métit métit yooyu ah baykat yeeg defee comme ñi ngeen def nii ci jamono jamono bi mag ñëw ak léegi danañ gis ay coppeeku yoo xam ne du coppeeku matériel kese kese mais coppeeku mental parce que yéen a ngi jege nit ñi nit ñaa ngi leen di gën a ñeme délégation yu mag au niveau dañuy ñëw nangam ak nangam ak nangam lañ bëgg a def dañoo bëgg ñëw laaj ci seen xalaat. voilà bu ko defee kii ñeme na man tamit ñeme naa ko bu lu baax mooy jaar suñu diggante bu dimbalante mooy jaar suñu diggante mais boo bëggee ber peuple bi fële ne man président la wala gouverneur la wala nangam ak nangam la vraiment da ngay indi jafe-jafe ñoom itamit ñu am jafe-jafe yàlla bu leen yàlla nattoo loolu yàlla bu leen yàlla nattoo loolu yàlla dimbale ngeen jege seen peuple bi ko defee jege peuple bi yàlla may na ci may na ñu soxla ay yoon ay yoon yoo xam ne dina may jokkalante jokkalante peuple dina yomb parce que wax nu yoon wi gën a yombee rek jokkalante gën a yomb nu yoon wi gën a yaatoo rek jokkalante gën a yomb moo tax su fekkee jaar ngeen fii ñëw tey ngeen xam ne soxla nañ jokkalante jokkalante boo xam ne dëgg-dëgg jokkalante bi war diggante nit ak dina ko am Euh, ñu ngi ñaan yàlla bu baax monsieur le ah ngeen bàyyi monsieur le préfet ngeen bàyyi seen xel ne bokk na ci li indi développement bu gaaw a gaaw mooy jokkalante bu gaaw a gaaw jokkalante bu gaaw a gaaw yoon yoon yu baax yu dëgër moo ko mën a defar te loolu mooy condition développement économique parce que yomba yomba jokk yomba jokkalante yomba weccante ay njëriñ vraiment xam nañ ne xam na ne foofu la développement nekk ñu yaakaar bu baax a baax ñoom te ñu ngi gis tam yéen a ngi ciy góorgóorlu vraiment ñu ngi gis ci man ku bañ dem Dakar la waaye fi ne damay sawar dem Dakar ndax ah, voilà ah Dakar la gën a bañ ci sama dund bi mosum kenn mosum mu fa kenn mënu mu fa yóbbu waaye léegi booy dem da ngay gis ne vraiment ah tu es à l'aise kontaan doo am looy jaaxle ah yooyu yëpp yal yàlla gën a yokkal ngeen ngeen seen xel ci yoon yi. baax a baax ngeen gën a bàyyi seen xel ci marché bi ah gën a bàyyi seen xel ci marché bi ceeb beeg euh, diwlin geeg suukar yooyu yëpp bu leen ko fexe leen ba nit ñi ñeme ko ba nit ñi ñeme ko parce que bu ñu ko ñemewut ci seen poche dañ koy sàcc moo indi càcc yi yëf yëpp jafe na ku nekk ko attan alors awma pexe voilà nit la ah yal na yàlla dimbale suñu réew yal na dimbale leen bu baax a baax vraiment bëgg nañoo gis suñu réew mi kawe te mun na kawe ndax ay ñaan lal na ko te maa ngi fàttaliku ci bayti Cheikh Ibrahima yi bi mujjee dem ci yonant la lam fa mujjee ñaan yaa rabbi Sénégal yaa rabbi Sénégal yaa rabbi Sénégal yow yàlla yow yàlla Sénégal yow yàlla Sénégal yow yàlla Sénégal ah loolu moo doon xelam ci Sénégal donc bon ñun ak yéen yëpp dañoo bokk Sénégal yéen a ngi liggéeyee ci côté bi ñu ngi liggéeyee ci côté bi ñun ñëpp ñoo bëgg lu ñu bokk ñoo bëgg ñoo bëgg ñoo bokk bëgg-bëgg dañoo bëgg a gis Sénégal prospère Sénégal nit bu yaru Sénégal nit bu xam Sénégal nit bu nangu Sénégal nit bu respecté ay autorités mi respecté wuñu leen parce que dañ leen a ragal mais dañ leen a respecté parce que ñuy autorité dañoo may liggéeyam ah. loolu lañ bëgg ci loolu la ñuy liggéey yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla gërëm leen ñu ngi leen di gërëm di gërëm président Macky baax ak gouvernement am yëpp yëpp euh, parce que ñu ngi gis loo xam ne ci jamonoom Sénégal lañ ko door a gisee parce que li gën a am solo mooy mental te gis na ne mental yi dëgg xam ne am na lu si dugg lu ci nekk toon te loolu yëpp ci seen jamono jamono Macky dañ ko commencé di gis Sénégal yàlla gën